Ensemble, nous vaincrons le coronavirus. asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñuy suivre ci seen site internet luttetv.com ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar tey mercredi 22 avril 2020 ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay comme ni ngeen ko amee chaque jour ma ko seex ak Boucar Ndour kor maama borom jilaas borom faja comme nag temps yëpp dafa ragal a génn couvre-feu bi ma déplacé wu rek ñëw ba këram ñu def revue de presse bi comme namoon ngeen ko seex Bass Kër Massar loola doon laaj ak Dame Mbengue Boucar ngi lay nuyu. Mor Jaxate nag nee na ma wax ki kenn nit dafa metti ana Bukar Nduur waaw même Seydina Aline borom jaasi gi nee na ma wax waxal Lamine muy naan ndox parce que moom dafa bëgg a ñëw rek lii affaire yi dama waaye nag day métti Lamine waaw maa ngi koy nuyu di ko ziar Lamine di nuyu gaa yëpp ñoom Cheikh Bass gaa yëpp Lamine Sénégal yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen masa waat ci feebar bi nga xamante ni Lamine dal na si kaw àdduna bi das na dal na si kaw Sénégal ñi si yàlla jël seen bakkantam ñoo ngi leen di jaal seen i mbokk jëpp Lamine di jaal seen i mbokk bu baax a baax ñu ñëw ci journal sunu làmb ak journalu record comme ni ma ko waxee 22 avril 2020 waaye 22 avril 2012 jaloore amoon na ci boo xamante ne Balla Gaye numéro 2 def na ko le lion de Guédiawaye bëri woon ci ak Yaxya Jóob Yékini mu daanoon ko ci dégg roi des arènes ginnaaw ba mu defee sept ans ci làmb dégg daali Yaxya Jóob la daanoon moo tax tey journal bi wan ñu ko wan ñu ba mu koy daane na mu koy accompagner ba na mu koy daane ba mu jaaxaan moom Yaxya Jóob Yékini ak Balla Gaye numéro 2 mu mel ni loolu historique la mémorial xam nañu koy waxee ak yeneen ak yeneen maanaam na ko journal bi jàngatee. waaw mémorable inoubliable Lamine en tout cas ni ñu ko mën a waxee rek Lamine maanaam tey li li ñu naan wax des fois ne on n'a pas les pour pour. pour qualifier mm. xëy na li li ngay ressentir wala événement bi wala ni ni nga xamante noonu la bés bi màggee woon mm. tey mën nañ ne tey bu fekkoon ne ab lii resi judd heure bi dina fekk mu fer Lamine ba commencé di dox ay soxlaam mu mel ne nag yaakaar naa ne Balla Gaye 2 euh, ak ki nga xamante ni moo di Yékini maanaam si histoire lamb maanaam lamb da ko il parce que dafa nekk journée yoo xamante ni Lamine c' ni ko journal c' est historique c' historique waaw ni ñu ko mën a waxee maanaam bés yoo xamante ni Lamine si histoire lamb dañ koy eldi dañ koy eldi fàttaliku Lamine. daanaka daal combat bi dafa ni démb amoon ci sa ci ci ci ci mardi ndax journal boo xewal tey da yaatal def na ci deux pages ba pare andilaan ñu film combat bi comme ni nga ko waxee bu ci xale judd woon instant nga ne lan na. fer na bay dox waxuma la dara mais commencé na dal na baa ndax temps la dugg na école di def CI wala CP wala C1 lan moo ci am classe yi. C3 ah, amul lépp non lépp non C3 amul C1 <laughs> CI la CP C1 C2 CM1 ak CM euh, euh, waaw CE2 CM1 ak CM2 Lamine waaye daal li leer ba leer daal mooy ko ne Lamine depuis loolu Lamine yaakaar naa ne Yaxya Jóob Yékini benn combat la si bëre moo ko dëgganteem ak ak ñoo moo di Lac de Guiers 2 décroché mu mel ni tey Balla Gaye 2 moo moo ko njëkk a dégloo muñal Lamine maanaam 15 ans la ne si bëre sa bëri dóor bi lamin di bëre. kenn mësu ko daan Balla Gaye ñëw Lamine maanaam ak gëm-gëmam ak philosophie am parce que ni niñ koy waxee des rek am na ñoo xamante ni tey mbër yu bëri boo waxee ñu naan Yékini sama grand la conseil am la solo yu demee noonu waaye tey maanaam moom dafa ñëw tey maanaam adversaire la rek grand la vétéran la am na lu ko yàlla ci làmb mais man ndaw laa tamit maanaam damay am gëm-gëm ne kii dama ko fi fekk daan ko jëfe ko quel soit les prix nag quel que soit les conséquences tamit parce que yaakaar naa tamit maanaam tey lamit maanaam nga bëgg dara muy sa objectif doo doo seet li la si fekk doo seet conséquences yi doo doo doo seet risques yi mhm. da ne lii mooy sama objectif dama koy atteindre lu ma si fekk baax na fañ jaar ba combat bi taxaw journal bi indi ko détail par détail face à face ndax booy xool li ma la ko rek yàggul dara Balla Gaye dafa nax Yékini ba combat bi taxaw Balla Gaye dafa daan Tyson ñu laaj ko mu ne soxla wu ma Yékini Yékini Balla Gaye 2 ni pare wu ma moom li ko laay moom génne dóor ci taabal ji ba taxaw ku ci nekk dem bàyyi ku nekk dem rooti ba combat ba taxaw seen première face à face ñu waroon koo defee Thiès xam nga la xawoon ca face à face ba ci la Balla Gaye États-Unis tent boobu. moom li ko laay Lamine maanaam ñu ko si rendraale hommage rek Lamine parce que yàgg na taxawal ay bés yu mémorable kon njëkk ni ñaan yàlla rek yàlla la. sport de doole la waaye tamit stratégie daf si bokk gis nga mënoon na tëb tëb laaj ko waaye xëy maanaam crédibilité bi mu waroon a am du ko am waaye xëy gis nga fa jaar ba combat bi taxaw mu fay ko si kase maanaam daan Mouhamed daan daan daan daan daan ñi nga daan xam nga ba si yëkkee ni Lamine maanaam am nga par def nga parcours bu alléchant am nga am nga loo xamante tey Lamine face à face bi bu kër nga face à bi ni ñu ko mën a waxee rek Yékini ñëw waaw seetlu nga Yékini affaire yi mu taal yi mu taaloon. poñe di poñe di niit niit yi niit la mel ci làmb la rek. loolu yëpp loolu yëpp ci baaxu baaxu baaxu baaxu maanaam baaxu làmb la rek. Mm. te cosaan andi cosaan andi li nga war a andi. parce que Yékini tamit maanaam tey euh, quelque soit qu'on dise maanaam moom moom xalaatul woon sax que ne Balla Gaye dina ko daane noonu. Mm. xëy na tey à la fin wala jour làmb xëy na ni mu doon waxee ne nekkul ak ay tànkam dañ doon bañ ak yoon waaye waaye maanaam bi combat bi taxawee hmm. dugalul woon si boppam ne Balla Gaye dina ko daan Balla Gaye nag mu jaraloon ko tamit ñu defoon face à face face à face boobu yàqu ñu ne dañ leen boole waat Radisson keroog nag la siège jóg face à face boobu yàquwaat ñu ni ñii ndax doonañ def face à face combat bi mel ni Tulle ak Male coow li waaye nag ñu boole leen ca buntu RTS sécurité ba doy Yékini ne ko Balla Gaye ni ko dama laa xam te xamoo ma Yaxya Jóob ni ko damaa sawar lool ci bëre ku ma xam te xaw ma ko waaw loolu yëpp man mi ñu ko waxee rek eh. euh, euh, am si ku nekk sax des hmm. xam te xamoo ma si xam bu noonu am tey mënoon na Yékini moo mënoon ne maa maa la xam hmm. parce que maa fekkee sab dugg si si làmb tey waaye bi bal bi Yékini dugg si làmb Balla fekkee ko hmm. waaye xëy na am na lu mu amoon yaakaar si lu amoon yaakaar waaye xëy sax am amaana mu ñàkk am yaakaar dara sax te wax ko rek ngir déstabiliser Yékini loolu yëpp la mel yaakaar naa ne maanaam lu histoire di retenir la ba tey face à face yeeg bajour lamb damay des ci face à boobu noonu kàddu yoo mu ne leen gaaw leen damay tëdd damaa gëmmentu ma leen ko suma pare damay jaar nii daw ndax man pare gu damay entraîné Yékini ni pare naa bu yàgg waaw loolu yëpp Lamine gis nga la maanaam loolu yëpp Lamine lamb ji mémorable historique loolu yëpp rek Lamine maanaam mooy ni ñu ko wax rek mënul sax définir ni li làmb ji amee woon ampleur Lamine Sénégal. Mhm. ba nit ñi bëgg ko def sax affaire ethnie te lamb maanaam sport la rek tey gaa ni ñuy waxee ne tey ku daanu rus ku nekk tamit tamit booy waaj da ngay ànd ak say mbokk Lamine ngeen dem waaji waaye daal li leer ba leer mooy que ne l'histoire retiendra. l'histoire retiendra moo tax journal bi ba léegi rek ci point waaw retour sur terre pour Yékini bu ko waxee maanaam xam nga Yékini demoon na ba ne li ma bëgg a def mbindeef mm-hmm. a def kenn mu ko sport nga doon def sport de combat ku daanu rus ni ñu koy waxee. huit ans après Balla Gaye 2 a perdu sa couronne en 2014 Yékini forcé à la retraite en 2016. Yékini forcé à la retraite bu ko waxee maanaam xaaram benn combat la teg moom Yékini muy mook Lac de yàlla xañ ko si ndam mu jaar fa découragé Balla Gaye 2 tamit Lamine bëri fekk Tapha daan ko bëri fekk ki nga xamante ni moo di moo di Bombardier Lamine Bombardier daan ko combat bu andi woon coow ñi naan ba wàcc teg na ans ñi naan tegul ans ak yu demee noonu waaye daal li leer daal mooy ko ne après la perdre couronne bi mm. si ki nga xamante ni tey moo di Yaxya Jóob moo moo moo di mm. fa la jaar nag Lamine dem gàddaay fa la jaar Lamine Boucar dem gàddaay ñibbisiwaat wane bëre Gris Bordeaux jóge fa bëre ak ki nga xamante ne mooy Modou Lo ak combat bi ak lu mën a xew daal journal sunu lamb moom combat bi saf na ko sàpp sàpp ba mel ni démb ci le mu xëyaat andul ñu jël bi waaye ak lu a xew daal gàcce ngaalaama ñoom ñaari mbëri waaye gàcce ngaalaama tamit promoteur bi nga xamante ne moom moo ko tëggoon di lig na ko laay ndax yaakaar naa ne combat bi jaay na ko ba mu mat sëkk sëkk sëkk sëkk ñu des ci comme coowul papi général digganteem ak ki nga xamante ne mooy Assane Ndiaye plainte ba ci ba ci jib moom tamit nee na saagawul dépassé kenn indi na ci ay leeral. indi na ci ay leeral moom papi général neena na saagawul Assane Ndiaye Lamine loolu la papi général xam le rek si biir journal bi parce que tamit maanaam bu dee saaga am na xëy na na tey ku doo jël site internet doo man par exemple tey doo jël nit mu saaga nit sax nga koy dugal. en tout cas saaga bu amee tamit loo xamante ni tey maanaam Assane na andi fii la ma saaga wala interview la ma saaga. Mm-hmm. papis nag xam leen que ne daal moom ak Assane Ndiaye amuñu problème wala bu ñu amoon problème tamit maanaam jël nañ waaw jël nañ ko interview léegi léegi nii di ngeen ko seetaan léegi léegi nii andi na ci ay leeral yu yaatu yaatu yaatu digganteem ak Assane Ndiaye digganteem ak lamb histoire lamb digganteem ak lamb digganteem ak carrière am ñu des ci journal bi nga xamante ne mooy journalu record Bombardier la xëy fësal wan ñu ay jaar-jaaram wan ñu tamit ci 45 ans yi nga xamante instant bi mu moom tamit moom la xëy fësal moom Abou Ndour waaye nag dafa mel ni comme ni ko journal sunu lamb bindee barki démb waaw Lamine borom gudd gudd Mbour Lamine moom la journal bi ne moo di Abou Ndour Bombardier rek Lamine la xëy bu fekkee ne maanaam benn a ko dese wala ñi ngi naan ñaari at ak coronavirus bii nii Lamine pour ma am combat ren dina xëy na déwén moo tax journal bi maanaam di def si moom di samp si moom ab laaj wala daal di def si moom ab jàngat double roi des arènes la borom ko dugg di mbuur jamono yi ma nga France Lamine. France te ñaareel bi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom Serigne Dia disqualification sanction financière tirage de position comment Tafa Gueye a imposé ses règlements. comment Tafa Gueye a imposé ses règlements Lamine maanaam waaw loolu nag mooy que ne maanaam règlement yi ñu andi noonu yëpp Lamine ci Tafa Gueye la jaar am. loolu tamit maanaam foofu nit ñi xam xara xam ko ràññee ko c'était un c'était un fervent lutteur un fervent technicien mais waa Fass dañoo bëri woon pexe da doon ñëw mu bëri ko xamante ni moo ko mën wala xëy na jàpp nañ ne duñ ko mën a daan mu andi ay pexe wala wala wala juram baaxul ñu andi ay pexe moo fi andi maanaam li nga xamante ni maanaam mooy pile mm-hmm. kii ne fii laa taxaw kii ne fii taxaw fii kii damay woon jant bi ginnaaw kii ko woon ginnaaw si Moustapha Gueye la jaar Lamine ni gis nga avertissement yi ñu bëri moo tax léegi ñu ne cinq avertissement ñu disqualifié la ak yeneen ak yeneen Lamine contre Baboy Lamine maanaam maanaam waaw loolu def na ko maanaam a nekk si àdduna bi waaye nag doo di waatale tamit Balla na Instagram comme ni ko Lutte TV amee gis nañ tamit yeneen mbër yoo xamante ne am am na ko démb woon nañu nee na bëgg nañoo dalal ci Instagram bi waaye tey nag la koy ubbi ak Père mbay gis na Père mbay def ci benn vidéo Instagram Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 la Gaye 2 Balla Gaye Balla moom mooy li nga xamante ni moom mooy Instagram mu mu mu yor ci benn kol bu weex face à face am ak Modou Lo woon loolu mooy profil. loolu profil bi loolu yoonu géej waaye ñu ko nuyu de passage moom tamit rek di nuyuwaat Sénégal yëpp di leen wax ne moom jamono ji moom ak yi maa ngi gis si direct bi Lamine gars a ngi direct daal Lamine waaye daal ñu ngi ñaan Sénégal jàmm feebar bi yàlla na ko lii wax dëgg fa ne kon maanaam nañ defaat retour à la source rek maanaam que ñaan tam Lamine maanaam moom la jàmm am moom la julit am moom la chrétien am tey képp ku yaakaar yàlla lay la mi maanaam ñaan di nga ko mën a def kon nañ ko fi yàlla jëlee le plus rapidement possible nañ ñaan yàlla mu jële ko fi le plus rapidement possible ñu ngi nuyu ñuy suivre tv point com yëpp Seydina Aline borom Dias ci comme ni nga ko waxee du nuyu borom Grand Yoff Mame Modou Gueye taalibe Serigne Mbaye Sy Abdou di nuyu tamit ki nga xamante mooy Birane Mbeng du fàtte waa Gambie ñoom ñoom ñoom ñoom suñu père Edi John waaw ñu ngi koy nuyu bu a waa Mbirkilaan FM Babacar Sarr doomu ndeyu Abdou Darame di nuyu Abdou bu xarañ loo di nuyu laay bu def waa Lit TV maa ngi leen nuyu bu baax baax ñoom tuuti yaay maa ngi lay nuyu di tamit ki nga xamante ne mooy Xaadim Bamba caatu Lit TV waaye du ma fàtte suñu grand kosu jabong ak Mamadou Ali Ndiaye champion du monde ba léegi mënul laa defaral licence man daa kii bi laissez passer man daa jaaxal na Mamadou Ali Ndiaye en tout man de xaar naa ko ba sonn parce que bu njëkk ba sax nee ma waa ji ko waaye waa ko waroon a jëli moo ko jëlewul woon ba affaire bi pas passé waa jooju moom c'est un Fassman waaye Mohamed Ali Ndiaye champion du monde non Fassman Mohamed Ali Ndiaye léegi sax maanaam léegi man dama jàpp ne maanaam ah, faratul Fass yi day léegi day liggéey mais léegi day liggéey léegi day liggéey c'est un technicien boo xamante ne tamit mu ngi tàggat ay mbër ñu koy fay di soxla xam-xamam kon kooku yaakaar naa tey ñoo koy jaajëfal daal di ko ñaanal gudd fan wér gu yaram moo ko njaboot gi yëpp Lamine sama sama sama laissez passer bi nag taxaw si di ziar waat ñëpp rek Lamine Leyti Sène Mame Waly Sène Madou Sène sama gars yëpp. léegi envoyé na ma bëggal démb nee na ma nee na ma da ngaa lay yëg Lirou. waaw waa Colobane Lamine waa Sandaga waaw Lirou de moom suñu waay la moom vraiment. nee na ma nee na damay jëlee quoi jëlee dama ko xewil. moo ñu bàyyi nag moom dama koy moo dem sax moom moo dem États-Unis te xam nga foofu noonu time is morning la gars yi di wax kenn amul jot moom day liggéey. te mu ngi liggéey comme yaa ngi liggéey nag Lamine yow Lirou waaw lépp loo def rek baax na daal nekkoom bi ñëw ngay mën di ñëw fii di am ay contrat di précis non loolu si a bokk. nga wàññi dóor yu métti yu liiru jaan rendez-vous suba liiru jaan yow laa may revue de presse dégguma ko kooku du dara.